ne dañ koo woote ci sëriñu daara yi war a dajeeg njiitum réew mi ba bu ma juumul la vingt wax loolu yàggatul mën naa ne ci ay fan ñu yegg ca démb wax naa ci ci kuréel bi may coordonné mu tudd aar daara ne dégg-dégg da lañ ci am démb ci altine ji laa yeewu jot ay audio ay réaction yi mbokk ci ñu ne njiitu réew mi ak sëriñu daara yi dañoo war a daje daje bi ñu ne ñaara ko sabab bu njëkk bi mooy soxna Ndate Siise ak ñu mel ni moom dañu koy dañu leen di sargal soxna Ndate Siise jàmbaar jooju jëloon première ca concours international ba dañ koy sargalaale ñaareel bi mooy sëriñ daara yi waxtaanee seen jafe-jafe ak njiitu réew ma ne woon nag ci déclaration officielle ci kuréel boobu ma jiite amagul mun a guñ ko cee wax ndax ku dégg mbir te bokk ca mbir ma maanaam dañoo bokk ñun ci sëriñu daara yi ba noppi di coordonné kuréelu sëriñu daara ay kuréelu sëriñu daara ñu koy coordonné ca biir kuréel booba ñuy coordonné am na ñoo xam ne bokkuñu ci benn kuréelu sëriñu daara mais ci kuréel bii ñuy coordonné la bokk muy aar daara aar daara dafa am ñu bokk ci ay kuréelu sëriñu daara nekk ci am ñoo xam ne bokkuñu woon ci benn kuréelu daara ñi ngi ci aar daara léegi nag bu ñu ne ñi ngi woo sëriñu daara yi te man mi nga xam ne may coordonné kuréel boobu noonu léegi du benn autorité bu bokk ci état. te ña ñuy wax ne ñooy woote ku ma woo du benn kuréelu sëñ daara boo xam ne nii ci kuréel yi nu xam la ku ko jiite ku ma woo yëgal ma ne dañoo war a dajeeg njiitu réew mi man leen kon lu ma ci wax ñamali lay doon a gum ba tey jii tamit ñamali laa ciy def mooy joxe gum ci sama xalaat ba keroog nag déclaration officielle buy bàyyeekoo ci aar daara di ca am ñu amal ko ci te loola des na ñu ngi nekk ba tey léegi bu ñu ñëwee ñu wax ne dañu war a dajeek njiitu réew mi ñaar a koy sab bu ci njëkk bi mooy dañu war a sargal sunu jàmbaar yi jëloon concours alquran bi loolu de dañ koy rafet di wax ne sax yéex na bu dee loolu loolu loolu kese la bu doon loolu kese la dañ naan rafet na te dañu naan yéex na waaye sargal ndongo bu jël concours international bu ñu ko rafetloo ne baax na beneen bi nag lañuy teg baaraam mooy waxtaanee jafe-jafe daara yi ak njiitum réew mi en 2022 2022 président Macky Sall la ñu fal 2012 ba tey 2022 muy fukki at fukki at yi ñu ko fal fekkoon na fi benn projet 64 daara yu ñu waroon a tabax ba léegi mi ngi taga tembe li gënoon a nekk priorité waxtaanee jafe-jafe daara yi ak sëriñu daara sëriñu daara yi mooy ñu audité milliards yi ñu dugal ci 64 daara yi te ba léegi inauguré guñ dama doon seenu la 28 bii ñu ne ci la ñuy inauguré daara yi nga xam ne moom lañ tabaxoon muy 64 daara loolu laa doon xaar 64 daara yi projet la boo xam ne ci nguurug Abdoulaye Wade lañ ko financé woon ay milliards dugg ci ay doomu daara ñoo dem lijjanti milliards yooyu bañ teg ko ci seen loxo mu jaar ci état ñoom ñoo toog bañ dajalee sëriñ daara yi ne leen téq nañ ci nangami milliards def ko ci plan tàkkal ñoo ko wax sëñ daara yi ci ab hôtel bu nekkoon fii dakaar li ci des mu nekkoon fukki milliards muy 10 milliards loolu lañ jugal ci 64 daara 64 daara yu ñuy tabax 10 ans 10 milliards 64 daara ba léegi daara yooyu noonu leen noppeegul balaa ngay waxtaanee jafe-jafe wu sëriñu daara yi dajeek ñoom war a waxtaan ak ñoom danga war a rek la jafe-jafe wu 10 yii ak 64 daara yi ba noppi moo doon priorité loolu benn la. te jàpp naa ne ña koy wuy ji bu ñu demee loolu bokk na ca lañu koy wax mooy lii priorité mooy 64 daara yii fukki at ba léegi noppeegul ñu jébbal lu caabi yi anam milliards yi fu mu dugg ana daara yi loolu benn la beneen bi mooy dañuy waxtaanee jafe-jafe daara yi ban yan point xaw ma kuréel bi nan la tuddati xaw ma yaa xaw ma lan ñooñu laa dégg ne ñoom la ñu chargé ne ñoom ñoo war a organiser ndaje mi jaaree ci ministère ma leen di wax neleen leen est-ce que président Macky Sall moo woote wala ministre bi ak i ndawam ñoo wooteel président Macky Sall ñaari mbir la yu bokk dama ci joxe exemple ah ànd sàmm jikko yi ànd sàmm jikko dafa am mel na mag Cheikh Al Hadj Malick dafa am lu ko kenn bàkkee def eh, bi muy wax ay mbiram dane aarifan bi rabbihi wa bi zamaanihi ku xam boromam la waaye xam jamonoom mën nga mokkal sa faatixay jamono te sa sa faatixay julli te doo mokkal sa faatixay jamono te ñaar yëpp yu mat a xam bëri na ku naan la président moo woote te wootewul daa am ñuy wooteel président ngir utee ko tur ànd sàmm jikko bi ñu jógee yëngal yi ñuy yëngal yéen ñëpp déggoon ngeen fi coowal président mi ngi woo ànd sàmm jikko yi loolu juróon na débat bu yaatu ci pénc bi ñii naan nañu dem ñee naan bu ñu dem lan moo feeñ après ndekete yoo président wootewul ay quelques personnes ñoo def seeni manigance dem gisee ñenn ci kuréel bi ki ko jiite waxtaan ak moom ne président waaye bu mu demee ba jël ci bañ jël ca décision bañ ca jël ferme après ñoo génnaat ci palaato yi ne ndekete yoo ñun ñoo doon dox pour bëgg ñu dem toog ak président maanaam ñun ñoo doon bëgg a nekk courtier yi jàpp ci loxo waa ànd sàmm jikko yi yóbbu leen ñu toog ak président courtier ay courtier lañ loola gaaña doon dox ca ànd sàmm jikko yi te ñu siiwaloon ne président moo leen woolu waaye gannaaw ba lañ xam ne ay courtier ñoo doon woolu waa ànd sàmm jikko yi mais du président gars yi tamit man ngeen jëlaat loolu ngeen posé ko question seen bopp yéen sëriñu daar yi ak ñiy wuy ji mooy président moo leen woo wala dafa am courtier yuy wooteel président di ca ut tur ak luñ ca loolu beneen la bàyyi leen ko xel bari na ku naan président woote te fekk wootewul donte nag buñ ko ko toggalee ba mu ñor mooy ñëw yekk ko muy benn beneen bi mooy xam ngeen ne président dafa nekk ci am yu bari yu muy jooyantiwaat te bokk na ci président yi gën a toggoo erreur ak ñaaw téef yi gën bon ci daal président bi fi nekk man maa ko wax man Makhtar Sall ci nguuram lañu ñu tojee bëtu sëriñu daara toj bëtu sëriñu daara toj Oustaz Taha fii fàttewuñ ko ci dee moo njaay lan moo tax ñu toj bëtam ay ndongom yi jàpp yeneen yi mbokk daaram ay ndongom yi jàpp mu dem xët xëtloog ñi jàppoon ndongo ya di dugal ci ay biis ngir ramas yóbbu leen ci ay centre mu xët xëtloog ñoom ñu dóor ko ca ba toj bëtam looloo waraloon aar daara woote woon journée dog nationale bi ñu woote woon fii ci parcelle defoon dog ya ñu def ca mois de mars loolu benn la ci nguuram lañu fekk sëriñu daara ca Cambérène mu tëju moo ki ndongaam di jàng alxuraan ay élément nguur ñëw fa ay takk der fekk fa sëriñu daara baa ki ndongaam di leen fitnaal di bundu xataal ba fekk ndongo bu nekk ci toilette ñu dajji porte ba jàpp xale ya yóbbu ba yóbbuwaale doomu sëriñu daara ba kan moo def loolu noonu le Ndey Sali kan moo faloon Ndey Sali Diop président Macky Sall ñan ñoo ko defloo defal Ndey Sali Diop ñu jiite centre yi ñu yor protection des enfants sëriñ daara ba tudd mi ngi tudd Oustaz Saalihu Congaan doomam téye nañ ko ay fan doomam jëm jur ci ay centre bañ ne duñ ko ko jox boobu lan la ñuy layoo mooy Covid bi te avant Covid bi lañu annoncé woon ne zéro enfant dans la dañuy teg benn programme boo xam ne zéro enfant dans la rue jël ay millions yi millions injecté ko ci avant Covid bi di dikk Covid bi ñëw ñu tàmbali programme bi di layoo ne dañoo bëgg jëlee xale yi ci mbedd mi ndax aar leen ci Covid bi ku informé wul loolu lañ la joxoon waaye ñun ñi nga xam ne lu xew ci daara dañ koy topp ba Ndeye Saly Diop taxawee assemblée nationale di annoncé zéro enfant dans la rue mi ngi ci suñ nopp bi boobu Covid ñëwagul bi Covid bi ñëwee ñu changé discours ci nekkat kat programme bi Covid bee tax ñu indi ko ci lañ taxaw ne déet déet du Covid bi deey mais lu ñu programmé woon la te bu dee zéro enfant dans la rue mooy xale yi yalwaan ba vingt deux heures ci guddi vingt trois heures ci guddi fële ca place de l'Indépendance euh, waa daara ji dañ naan waaw góor ramasse leen yóbbu bu dee xale yi nga xam ne cinq heures du matin la ñuy jël ay bus ak i njaga njaay ak i car rapide dem di yalwaan yi dañ naan waaw góor ramasse leen bu dee xale yi nga xam ne ñooy buujumaan yi nekk fii ci ron pont Colobane yi di 15 wala ñu nekk fii ci pont Grand yof bi di Guinze wala ñu nekk ci yenn gox yu bari ci ndakaaru di fa fanaan ci sedd bi bu dee xale yooyu ngeen bëgg a ramasse dañ naan leen waaw góor ndax yell ñu toog di leen déglu ñu jóg jël seeni dogal ne école yi day tëj yemuñ ca ñu ne daara yi day tëj léegi am na yenn quelque ndimbal yu njëkkati ceeb nangam nangam jox nañ ko quelque daara léegi nag toog leen amatul xale buy génn di yalwaani te daara yu bari pour ñu dund dañuy génn yalwaani ñu mën a tëj seeni ndongo ku mel ne man yor internat sa ndongo da leen di tëj nga tëj leen ñeneen ñu mel ne man mën a tëj seeni ndongo tëj leen mais sama mbokk ma ca kaw Kaolack sëñ Habib Sarr yor daaraam ndongoom dañuy génn jëli saraxam mënuñoo tëju ndax joxoo leen lu ñuy añee ka reeree ka ndékkee te jamono jooju génnee nga mille milliards di ko jox ay fecckat di ko jox ay mbandkat di ko jox ay comédien mille milliards yooyu noonu le mu noon nga cee jox sëñ daara yi luñ toogee seen daara mais defuñu ko lan lañu def mooy toog leen force ku génn xam ñenn ñi ne waaw léegi toog nañ ku mel ne Oustaz Saliou Thiongaan ak ña mu àndaloon toog nañ ñu ne léegi dañuy ñëw sax xool xale yi toog ñoom nan la ñu toogee condition yi te période bi ñuy xool condition wu daara yi ñu ngi bàyyi ci banlieue bi ñoo xam ne ci ndox la ñuy fanaan fa la ñuy añee di fa reeree ak seen njaboot kenn jëlul seen njaboot yóbbu leen ci ay centre mais kan lañu teg bët mooy dañoo teg programme bu ñu million ñu fas yéene lewal millions yi mooy taalibe yi lañ teg bët taalibe yan du yi yalwaan ba 23 heures du yi yalwaan heures de matin de du yi fanaan ci mbedd mi de mais dañuy bàyyi ba 9 ci suba jot ñu dem taxaw po ñu dem taxaw yoof di xaar ku mel ni Oustaz ay Faye ay ndongoom génn di yalwaani 9h 10h ñu taxawal bus dugal ci takk der am na kenn ku ci nekkoon ku ko jiite woon faatu na ca jamono yële ku ko jiite woon faatu na ca jamono yële kooko a nekk ci biir fekk identifié nañu daara yi fekk laata loolu benn recensement lañ def ba xam daara yu bari fu ñu ne. yu ci internat yu ci daara yalwaan ñaata ndongo fa ne sëriñu daara bi numéro téléphone am ne dafa am lu ñuy séddalee ba ñu recensé daara yooyu yëpp ñu yor liste bi toog tey ña nga Kër Masaar gannaaw suba ña nga gannaaw raay gannaawaatu suba ña nga yoof beneen yoon ba ña nga fële ca géejawaay noonu lañ nekke woon di topp semaine par semaine xale yi ñuy jël dañu lay jëlee ci sa buntu daara la ñuy xaar nga génn di yalwaane ñu kar la kaay leen jël sarax ngeen daw yéen ñëpp taalibe yi ñëw ñu jàpp leen kidnappé leen dugal leen ci ay bus yóbbu leen ci centre di fay borom centre ya lu mel ne centre gindeek yeneen centre yu ni mel di leen fay pour ñu téye xale yooyu noonu man sama première plainte ci sama dund ñi ma ko plainte 2020 te ci nguuru président Macky Sall la te ci mbirum daara yi mooy ki jiite centre gindi di may mun a balde fekk boobu bi Covid bi départ ñuy def lu mel noonu dañ doon ñëw rek ci daara fekk sëñ daara bi ne dañuy jël ay ndongoom amul këyit bu ñu lay jox amul benn justification ci laa waxoon benn communiqué ne ku ñëw ne daf leen di laaj seen ndongo pour ne da koy jël te wanu leen këyit gàddu leen yat ndax bu fekkee état mooy yebal ndaw wan leen wan war na leen a jox këyit ñoo xam ne kii mooy kii kële mooy kii mu jël baat boobu noonu la langaamu ci dem di ma plainte dama toog rek waa digg ñëw sama kër jël si ma ne dañ la soxla pour déglu la ci nangam ak nangam ma yegg dig falaa jullee kera tàkku sax may mun a balde ñu ne ma léegi la génn déglu nañ ko ba noppi man ñu téye ma fa déglu ma daanaka keroog vingt-trois heures ci guddi laa fa jóge commissaire digg bi moom ma yóbbuwaat ba ba sama kër ma ñu laaj ma ma tontu ñu pare ne waaw gisuñ ca dara am lu ma commissaire ba ñaanoon ci jamono yi pour ma bañ cee communiquer ndax nekkul mbir moo xam ne nii bu garave la xaw ma la nag la ma ne ko baax na sama avocat ne baax na jarul nga ci waxagu moo tax am na lu yàgg benn kuréelu sëñ daara wala kenn ku ma jege xamul loolu mi ngi fi yàggul bàyyiwuñu fitna boo xalaat semaine bu nekk ñu dem di identifier ay daara di jàpp ndongo daara yi di yanu di yóbbu bu ñu leen téye ci sant yi quelque jour luye oto ñii ñu ngi leen di yóbbu ba Vélingara ñii ñu yóbbu leen ba maatam ñii ñu yóbbu leen àll Saalum am na ci ndongo yoo xam ne dañ leen di yóbbu ba jege seen dëkk ñu woo seeni parents ñu génn xale yi noonu lañ leen di wàccee am na xale yoo xam ne noonu lañu ñu réeree am na ci benn xale boo xam ne réer na ay fan ba ay parents dañoo naroon a porter plainte gannaaw ba la yàlla feeñal xale bi lii jaar na fi de bàyyiwuñu de aar daara juddu woote la tërees fële ca parcelle di jooytu ne président Macky Sall Ndeye Saly Diop mi ngi leb bor boo xam ne yaa koy fay mu tàng xam lu jamono yooyu nag la président waroon a woote woote bi neex na ah période boobu ñoon président woo na sëñ daara yi ndax waxtaan ak ñoom ci jafe-jafe daara yi dañ ñor na xomm te jot na sàkku nañ waaye lan moo xew dañu wax ne zéro tolérance amul reculer amul dellu ginnaaw. ñu def première phase bi pare di njamoo ndamoone ne nañu lu mat juróomi junniy ndongo maanaam juróomi junniy taalibe jële nañ leen ci seeni daara tas nañu ay téeméeri téeméeri daara boo waxee loolu mooy tas nga téeméeri téeméeri daara def ko ci ay journaux aar daara juddu woote la treize wax seen discours sàkk ñu wàccee ndey Sali Diop Dieng am recommandation yu ñu sàkkoon ci gouvernement bi waaw boobu ñu ngi doon wax sunuy jafe-jafe faale ñu jógee fii ci ndakaaru ci parcelle utali Koungheul ñu def ay manigance lu leen neex ci autorité ya fa nekk dem ba menacé ñu ñuy waroon a dalal ci jumaa ja ñuy waroon a dalalee pour nekkat ñuy xeex état xaw ma lañu lan noo fii ñëw biñ ñu ko waxee aar daara na leen doonte dañuy ñëw ba digg Koungheul ñu taxawal suñu biis def suñu déclaration ñibbi ndakaaru danañ ko def biñ dogoo xam ne dañuy ñëw lañ ña fa nekk jëlaat beneen taxawaay utiwaat feneen fu bokk ak fa njëkkoon a jàpp ci lañ ñëwee Koungheul defaat fa suñu dajee lan moo nu fa yóbbu woon di jooytu daara yii nuy tëj di jàpp ay sëriñu daara di jàpp seeni ndog jamono yooyu bu ñu woote woon dajee te diggante bi ñu daan wooteeg ba ci topp lu mu néew néew un mois dana ko mat boobu ana président bi woote ni tey wala ñii ne dañuy woote ne président moo bëgg waxtaan ak daara yi période boobu noonu la fan la ñu nekkoon ñu jóge ko Koungheul ñëw fii ci Kër Massar diggante bi daanaka trois mois ngi mat de ba léegi lañ doon jooy moom lañuy ñuy jooytu gannaaw bañ jógee ko Kër Massar tëb naa lu bare bari ci diggante bi yu fi xew ci ay ñaawteef yoo xam ne nii teg nañ ko baa daara ak sëriñu daara jamono yooyu sëñ daara yi maanaam organisé woon nañ ñun aar daara benn groupe boo xam ne vingt quatre mille dog lañ ko tuddee woon semaine bu nekk ñu dugal ay ñaan lan lañ doon ñaan yàlla ñii teg ñu lii naqaral ñu di jooyloo sëriñu daara yi di leen teg lu métti yàlla nga leen teg luy tax dootuñu talati tudduñ turu ma Sàmba tudduñ turu ma Demba mais am nañ ci droit ñaan suñu borom jamono yooyu noonu le buñ ñu woo ne dañoo bëgg waxtaanee suñuy jafe-jafe <laughs> doon na ñor xoom bàyyi wunu ñu tamit bàyyi aar daara ci la jógee def tournée daanaka turne nationale fii lañu ñu benn alxames dem Jurbel fekkee fa benn projet sëriñu daara bu ñu doon àtte damay fàttali turam xaw ma Ibrahima nan ñu fekkee àtte ba noppi dem daara sëriñ Mor Mbay Siis keroog Jurbel lañ jógee dem nañ kër maam alaaji Mbàkke Tàññ dem nañ kër maam alaaji Ceerno Kàññ jóge fa ne Touba ñi keroog tuubaa lañ fanaan dem seeti kilifa yi ñu seeti tuubaa ku mel ne sëriñ Ahmad Rafa yi bokk na ci ñëw taxaw buntu kër sëriñ bi def fa déclaration déparé Touba keroog ñu nga jullee àjjuma Fass Touré jógee koo Fass Touré ne kokki ñanga noonu lañ demee kokki giseek sëriñ daara ba sëriñ maxtaar naar euh, ñu giseek moom waaw waxtaan ak moom wax ju yu bari ci yoo xam ne ñoom it dund nañ ko ci ay mbir yoo xam ne jarula a dellusiwaat daaree ko ki lu man ñeenti junniy ndongo nekk ñeenti junniy ndongo ñu xam ne ñeenti junniy ndongo ña nga fa yalwaani wuñ demuñu dikkuñu état amul saako ceeb bu mu leen warlul ci këyit yu ñu signé weer wu dee di leen ko jox kooku balaa wax ne day waxtaanee jafe-jafe du régler injustice yooyu noonu leen ba pare 4000 ndongo yu teg ñoom sëriñ Mbuub ñoom Abdou Aziz xaw ma Abdou nan la santati ah ñoom sëriñ As ancien ndongo yi daaray kokki yooyu noonu la yàlla dénk wërsëg ñoy jël ay millions diko injecter ci daara ji motax tax ngay ya mëna tok a ñu demuñu te ñi ngi añ ñi ngi reer ñi ngi ndékki te état dugalu fa deureum dudul tok lélé ba ñu neex leen ñi yëkkati seen yenn ndimbal yobbu ko fa benn secteur bañ leen di jappalé pour yobbu fay kat moy euh, école ba nga xamné ni ñay ña walé tubab waale franco bi te loolu bu dul woon tubaab yi tubab yi fa dara duñ ko fa yobbu ci ñu jógee daaray ci keroog ñu ngi fanaan ci Tiwaawan waaw keroog Tiwaawan lañ fanaan ñu gisee ak sëriñ Babacar si Abdoul Aziz bi ñu xëyee jaar Njaasaan jaar Canaba dellusiwaat Ndakaar loolu yëpp aar daara lan la doon yóbbu mooy joxe ay preuve yi wane ne sëñ daara yi seen bët yi xonq na te ñi ngi wax ak état ba léegi mi ngi ñuy tànqam ne du def lu leen fekk bi ñuy demaat tournée boobu maa ngi rappelé wu jóge nañ ci première phase bi dem ci deuxième phase deuxième phase bi biñ ci def biñ ci dem dañoo mobiliser mbooleem état li mu am ci ay ci ci force ci doole lañ mobiliser dugal ci ay procureur dugal ci préfet ñëpp ne léegi daal mbir yi dafay jeex duñ nangooti xale bu nekk ci mbedd mi boobu bàyyi nañ école yi ñu nga wéy di jàng tubaab te bi ñuy tëj école ya bëgg a tëjaale daara yi ñu ne leen déedéet du Covid bee tax mais daara yi lañ bëgg a tëj am na yenn ti sénégalais yu informé wu woon yu ñàkkoon information lan lañ doon wax ah da ngeen nangu nag ndax école bi mu ngi ni jàng ñu kon bu ñu yéeneen war ngeen a toog ngeen xam ne Covid bi rek la ñu ne leen déedéet far yàlla àtte mu dem ba école yi ñu ubbi ñu bàyyi ndongo ya wala élèves ya dem di jàngi école ñun ñu ne ñu seen ndongo yi dootuñu génnee ti jëli seen sarax. delluwaat ci daara ji deuxième phase boobu maa ngi fàttale li ñu doon annoncé maa ngi yor archive yëpp loo ma ci laaj ci archive ma génne la lépp maa ngi ko denc 15 milliards la ñu ne génne nañ ko ci deuxième phase bi ne léegi nag jeex na jeex na léegi xale yi danañ jógee ci mbedd mi nii wala na dem nañ bay menacé toog ay plateau télé ay ñoom Diouf ñoo ko bàyyeek seen consort googu noonu li di menacé ne léegi sëñ daara bu ci dëgër bopp xaw ma lan buñ jàppatee sa ndongo buñ kiyee mën nañ ko yóbbu ci procureur woo waajur wi ba ay daan xaj na si ba am na ci ay waajur yoo xam ne yóbbu nañ leen ci tribunal fu mel ne tribunalu pikin maa ngi fàttaliku euh, waajur boo xam ne nii ma nga dëkk fële ca Mbuur woolu jàpp nañ fi doomam ju nekkoon fii ci Ndakaaru ci benn daara di jàng ñu yóbbu ko ci benn sànt sëñ daara ba dem ñu ne wooyul waajuram waajur wa ñëw Ndakaaru ñukoy dawlo tay suba ba tribunal la mujjé kérok ñom imam babakar silla ñooñu ñoo fa teewaloon aw ar dara ñu taxawu way jurwa and ak mom ba mujj ga ñu am yuñ ko signé lo ko nangam pour man ko délo doomam nga xamné démon nañ ba yegg ci ne lay gëy way jurwi sa dom buñ ko jëlé ci dara ji nga wat ko fi tribunal nga jëm nga dugg kasse biñu ñu nak dugal ci préfet yi nga xamné ni bu ñu dem ci seen ramas yi police la ñuy àndal ñu dugg ci bus ah ci lañ na nag <laughs> soppi doxalin jog na dañ doon def ay daje fii ci lañ dugg ne nag xaaral ñu dem yëgal kilifa diine yi ci Sénégal mbir yi fan la tool ci lañ dem dox ci lañ ca ba ñibbis bis taxul ñu bàyyi de lii ma tudd léegi ci Oustaz Taha Niang gannaaw bi nu jugaatee seen deuxième jug bi ba mobiliser mboolem force état bi pour dal ci kaw daara ji ci lañ ne nag ah euh, soppi doxalin jot na jot balaa ñoo amalaat benn dajale ñu dem seeti kilifa diine ñu dem seeti leen bi ñu ñibbisee yàggul daara ci la xew-xew boobu xew ci Oustaz Taha ñu dóor ko ba taj bët bi keroog bañ fa dajee nag lañ jël dogal alxames la ñu dajee daaram jël dogal ne al ne dimanche sëñ daara yi danañ daje fële ca parcelle unité 13 tàllal yàlla loxo nag la maam Cheikh Al Hadj Malick ne wa qarciya baabal xayri yaa rabbi lam yufit li zaaka saraf naa naxwa baabika wijhati ci lañ ne nañu tàllal yàlla loxo gannaaw dafa am ñoo xam ne dooley zahir ji ñoo ñu ko ëppale ñun amuñuy fetal nekk ñu ñuy baare ay tali du ñu lakki bus du ñu nekk ci marché mbedd yi di marché di yuuxu am na lu ñu fi sunuy maam bàyyeel nag te sunu maam lañ ñu fi bàyyeel démb moom lañ doon jëmmarloo tubaab bi nañu génnee kàggu yi nag la ñu suñ maam bàyyeel ñu teg ko ci taabal ci lañ def journée dog national ndakaar woote fii waa Kaolack woote yeneen i dëkk woote ñu joxe sunuy dog dog ñu saf sàpp nag lañ joxe sàpp waaw kaani ko ba mu saf keroog bi ñuy joxe dog yi maa ngi rappelé wu ba tey dañu xëy di dem ci dog yi maa ngi soloon benn benn xaftaan bu bëla <laughs> ñu bari xamuñoon xaftaan boobu lu mu gis nañ xaftaan bi ku ma jege woon da nga gis ne xaftaan bi yenn wet yi xotteeku na xaftaan boobu sama baay laa ko doon ne mm-hmm. waaw ci ay affaire rek laa koy sol <laughs> keroog bi may génn maa ngi wax Babacar Sylla ne ko jaw ji am na la muy wax jaww jii ma gis am na lu ñuy wax keroog bi ñu defee dog ya bay jeexal am na benn site internet ba léegi vidéo ba maa ngi woon boo xam ne maa ngi ciy wax lu mel noonu ne gars yi yëkkati nañ benn cadeau del jox nu ko mooy ñun ñëpp keroog dañoo tafoon suñ yi ngir solidarité avec Oustaz Taha ma ne gars yi defar nañ kado jox nu ñu ni def nañ cadeau danañ leen ko dell te nekku ñoo ñuy menacé de kuy menacé mooy koo xam ne amoo arme waaye <laughs> dañoo xam li nu am te te du ay fo xam nañ loo xam ne it du jamono yu ne lañ koy yëngal man maa la ko wax keroog wax naa ko ca la fin ba ci tëngee ne keroog journée boobu jàng nañu ba jàng fa kaamil bu lëj affaire la waaw gis nga ba ñu jugee ko ci daje boobu noonu la ñu jugee ay fan jaww ji day niis maa ngi wax ay mbokk ne leen jaww ji am na lu muy wax teguñ ci dara la événement mars yi tàmbali ah bi yi tàmbalee kenn waxu dara ñun waxuñu dara xamuñu yàllaa ki ñëw ki mbiram am na kenn ku ñu woo coow li jug na dëkk bi yëngatu tey am na ñoo xam ne li may tudd courtier yi am na ci courtier yi ma doon woo man mii ne dañoo bëgg a gisee man ndax dañoo dégg ne dañoo meroon ñun sëñ daara yi ba dajaloo di ñaan ma leen waaw waaw ñu ne nag dañ leen a wax ne leen ñoom ñi leen di ñaanal ñi leen di ñaanal ñoom ñoo ne leen kat lii xew ci réew mi loxo sëñ daara yi ma nga ca période boobu noonu la période boobu noonu la bañ ci jógee ba événement yooyu passé ca lañ arrêté programme zéro enfant dans la keroog lañ gëj a jàpp taalibe dugal ci oto ba tey ba tey lan lañ mujjee day Sali Diop jeng jël ay millions yi millions jënd ci ceeb ak ci diw wër di ko séddale daara yi te fekk yëg naa lu bari am na ci ceeb yoo xam ne sarax la woon yu ñu leen waxoon yu ñu war a génne te xam naa ci lu bari loo xam ne du loo xam lu nekk da nga koy wax man bokk naa ci ñi ñu waroon a indil yenn saraxu yi ay tonu ceeb yu ñu ma waroon a indil ma gàntal ko te boobu sax xaw moo ne ay sarax yu ñu leen digal après laa xam lépp en détail fu mbir yi jógee ñu leen wax ne il faut ngeen jël ceeb ba saraxe kook nangam ak nangam ah. loolu <laughs> jaar na fi ñu bàyyi daara yi ci ñii ñu leen bàyyee ba tey jii ñu ne ñu kat dañoo war a toog pour waxtaanee jafe-jafe yi aka neexoon muy deux mille vingt aka neexoon muy deux mille vingt et un te njëlbeenu mille vingt et un laa wax ndax après événement mars deux mille vingt et yi boobu. Euh, wote won lu melni mënon na yomb mais avant événement mars yi ak a ñu wote li 2020 bañi daw di dem parcel ar daara di judd fu nek mu dem fa ak a neexoon ñu wote li fay bax ci situation yu melni nga fatali lu melni ça c'est important boo ko ma del siwaat ci li ma ne man en tant que ku jité ben kuréel maanaam di ko kordane bu tudd aar daara invité wuñ ma wala jotaguma invitation yëgaluñ ma du lu jugee koo ci état du lu jugee ko ci kuréelu sëriñ daara yu ma yëgal ne ma invité nañ leen bi sàngam da ngeen war a daje njiitu réew mi kon ñamali laa ci waxagul pour fàttali ne woote bi de lii yëpp jaar na fi te xewul lan moo yeesaat ci diggante bi lu bees lu juraat ñuy woote ngir waxtaane ay jafe-jafe ak yan jafe-jafe la ñuy waxtaane yan ñaata yoon la seen di kaawu école tubaab bi daje waxtaane ay mbir su paree ñu jël ko dugal ko ci taabal jafe-jafe yi ñu wax nañ ko waxtaane ci daara am na kuréel bu tudd raabita ci kuréelu sëriñu daara yi ay ab diir ca jamono ca ginnaaw lalu woon nañ dajaloo defar document luy jafe-jafe daara ñu jël ko tënk ko ca jox ko état ba léegi ñu ngi ko jël xaw ma boo xamee nañ ko caaf xaw ma ñu ngi ko def ci seen ron classeurs yi ci seen bureau ya jafe-jafe yooyu lan lañ ci réglé gu bay waxtaanee yeneen jafe-jafe yu bees waaw léegi président bërki dem moo njaay jokkook ndaw ñi léegi jokkoog sëñ daara yi moo ci war a topp léegi bi biñ jokkoog ndaw ñi lu ci juddoo buñ jokkoog sëñ daara yi lan moo ciy juddoo am na loo xam ne xel ngay mottali xam leen lees waxut am na loo xam ne nag ci laay daanale en tant que kuy coordonné kuréel danaa respecteel ku nekk gis-gisam ci bu waree dem wuy ji ak bu warta dem wuy ji ku nekk loolu sa gis-gis la ma respecté la ndax amuñu benn saytara mën a wax kenn ne ko force lii ngay def ak lii doo ko def amuñu pouvoir boobu su demoon ba kuréel bii ma jiite ci kuréelu sëñ daara jot seen invitation danaa leen wax ne jot nañ invitation bi bismillah mi ngi ci taabal ji lu ngeen ci xalaat bu ñu dëppoo unanimité ne dañuy wuyu ji bismillah dama naan kon kat kuréel bi ca dëppoo nañ ne dañuy wuyu ji su boobaa Maxtaar Saar moom dana yebale mais du dem man boobaa danaa yebale mais déw ma sama liberté lay doon man kuréel bi nag danañ dem boobaa ca jour ba ñu ne aar daara yebal nañ daw mais man déw ma su ñu dëppoo ne demuñu fekk ci loolu lañ ma fekk man ne déw ma déw ma li tax nag. ay raison yu bare bari yii ma junj nii leer na la ci rek leer na la ci ci lii ma junj lu mën naa ne sax lu ndaw la ci histoire bii ma fàtte yeneen yi nag ay mbir la yoo xam ne lees waxul la nag te dees ko war a xam waaw ku dem ba jàng ibnu durayd jàng maqaamaatul xariiri yi waaye du ay tig-tak nag lañ la war a yóbbu nag ci ay ci ay euh, mbir yoo xam ne nii film yooyu noonu lee Abu Zayd di di joué ci biir maqaamaatul xariiri yooyu nag jàng nga ko ba nag moo tax ma ne am na loo xam ne leneen la ci raison wu man demuma donte sama kuréel buñ dogoon ne dañuy dem dañ leen di respecteel danañ nangu ne kuréel ba teew na fa ak ku leen mën a représenté su booba waaye man demuma demuma sama kuréel nag boobaa mën nañoo dem waaye ba fii mu toll nii far sama kuréel jot invitation te nag bu demee ba mbir yi gën a jege. te jotuñu invitation officielle danañu def déclaration officielle wax ci wax du officielle ful la daal la wolof ne mooy jaay daqaar fulay jaay daqaar réewum lay réewum république bi ak daara ku ci yaakaar ne sa bët buy xonq sa ronxoñ di génn ñi a koy saafara xamoo luy lay xamoo luy république yi ñu nekk nii xamagoo loolu laa ci doon wax li ci des nag li ca kanam rawuli bët